wax moo la war waxal rek ak ñoom du ne yow yaay wax ba tax nu gëm du ne yow yaay ñàkk ñàkk wax ba tax nu nangu wax moo la war waxal rek kay jub nag ak kay baax man maa koy def man maa koy dugal man maa koy jubal mais yow waxal wax leen li nga xam ne mën na leen caa fekk ëllëg wax leen su fekkente ni éternellement a ah, baax de am na waaye gën nee leen mooy mu continuer éternellement nii ngeen débuté nii ci mois bi mu continuer éternellement moo gën ndax baax dafa am gën am. la. mais su weeru koor baax am su gën am su weeru koor yu passé nga gërëm Wally Seck day korite. dama ne lu tax mu waxoo Wally mu bàyyi tëgg. dama ne. sa doom ji lu tax waxoo ko bàyyil tëgg. dama ne. yaa fi nekk naan ko Mayacine Mar ginnaaw weeru koor mu Mayac di itam mbale. dama ne nga koy gërëm. dama ne. waxu mu bàyyi. dama ne waxal waale mu bàyyi tëgg laa la wax. da may déglu man lu tax ko ko wax. dama ne bi ngay wax dama laa déglu sànq. waaw. waali. waaw mu tëgg. Mhm. mu ñàkk tëgg. Mhm. mu taxaw. Mhm. mu ñàkk taxaw. mu tëj. mu ñàkk tëj. mi ngi def loo xam ne. man day gis naa ko. Ah, ba ci doo ko wax mu bàyyi riita mbale. mais egg mais bàyyi ma egg. eggaleel. mi ngi def loo xam ne moom mii nga xam ne alxuraan mi ngi ci ab dënnam. jekkoon na ci moom te def non mais Waly alxuraan nañ ci dënnam doomi jullit la. <laughs> papa Cheikh lan lay eh, ah? alxuraan nañ ci dënnam doomi jullit la. mais nangu mi ngi xam ne. mais sa papa non da ngay farle sa papa du déglu du déglu kon faralal sa papa. Waly gis naa mu leel jullit. Waly gis naa mu leel jullit. leel jullit. te am na ñoo xam ne ñeent fukki dërëm néegu nu koo génnee ci seen alal la nu yor du nu leel dulit du nu sarax gumba du nu tànk gaana dañ koo amut te moom mii am na ko non man waali dina togg ay ñam ma teg ci sama bët moom ak góor gi si gen ñuy togg ay ñam di yëkkati di ko taaj ay ñoo xam ne ñu lekk jafe nañu ndaxte nit ka dafa ñëwoon daal ne sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim man dey damaa bëgg sunu borom ful ma damaa bëgg am te daanaka ab coono taxut ma ñeme ko noonu wala ma mën ko noonu ndax damaa xaw a néew doole bëgg a dëkkoo sama alal lool mu ne ko dangay fekk def ko tund mu ne ko dangay fekk aw xur nga def ko tund ba mu ko waxee ñu bari yaakaar nañ ne ab xóote la boo xam ne da ngay ñëw jël suuf sa di ko jal ñu ne daal mu ne fekkal biir bu xiif ba nor ba doon kii nga sol ko ba mu ne dadd reggal ko te kii muy waali gis naa ko muy faj ay doomu aadama loolu mooy sociale kenn ki nag moom dafa yenu joget wa muy góor gi si dien bërki démb doonoo ëlbati ku taxaw président ba nekk Amérique da koo décoré ngir social nga opp mu faj la nga xiif mu jox la nga lekk nga tële mu dimbali la ñu jox ko ci ab kub décoré ko président bu États-Unis def na ko démb nan ma ko ci ca 2S ñu taxaw woon ma ko ah li ngay def a gën li muy def am moom li muy def a gën li ngay def. papa nañ ko téye foofu. dama koo laaj li muy def a gën li muy def am moom li muy def a gën li muy def. day koy da koy tontu. te am na ko de pour la deuxième partie. wallaahi. am na ko barke borom Touba Mbacke am na ko. dëgg la Fall ay day tukki ci sous-région bi def. day dem ay Maroc. maa ngi koy def day dem fu nekk barke borom Touba Mbacke am na ko mën na ko mën na koo leel mais. néegu koo génne di togg ay ñam di ko jox ay doomu aadama loo ci xam ah <laughs> loolu maa ko wax Cheikh maa ngi ñëwaat li ngay def a gën li muy def am li muy def a gën li ngay def jërëjëf Père Mbaye Ngoné Khady ñu delloo la li nga xam ni hmm? euh, mooy kàddu gi nga daal di yeggale ah? Oustaz Mouhamed ah, <laughs> ah wax leen ma li muy def a gën li muy def am li muy def a gën li muy def wax leen ma. dugi Oustaz euh, Mouhamed Mbaye. boo ko defee moom it mu fekk waxtaan fii la sax ci xol. ab ragal du ko def balaa ab ragal du ko def. joxe dafa mel ne am na lu ma rëcc de. waaw baax na waaw. <laughs> li muy def a gën li muy def wala. am am li may def a gën li muy def. Ah? Oustaz ne ko woo man. Ah? kan. papa ji lay faral Sofia non Sofia papa ji lay faral. dafa doomu aadama sarax gumba tàng gaal dimbali ku mënul gindi ku réer. gindi ku réer nit réer nga dem ba xam yoon war nga gindi ko rek dégg naa sunu borom da ciy fay doomu aadama. dëgg la dëgg la dem ba xam aw yoon réer nga fexe ba gindi ko mu xam yoon. Oustaz Mouhamed. waaw riita mbali waale bi ba tey daf ko tëb. jë jërëjëf bàyyi jàmbur bàyyi waali sekk. mu ngoog ñu bàyyi papa mu toog tuuti ah ñu dem ci oustaz oustaz Waly Seck góor gi si Dieng Famara Diédhiou ku leen laal di la laal dëgg la de li ngay wax yëpp dëgg la. mais Khady euh, man dama même ci sama waaraate. waaw du ma xool nit ni hmm. baaxul. Ah. wala ma xool nit ni nitu safara la. Ah. parce que damaa ngi maa ngi togg. Hmm. Ah. mais du ma reetaan ku xëmle. comme maa ngi ci yoonu waare. mën naa xëy bis yàlla jamaj loo ma. jigéen ju rafet mën na maa yàqal. alal mën na maa yàqal mhm. enregistrement mën na maa ma mhm. xëyee dinaa dugg ci la ma daggal ma waxal léeg ma commentaire ma man ma dugg ci bi ma dugg ci commentaire bi dem ci facebook am wax ak moom pour laaj ko fan laa juume parce que dama jàpp ni ki ma seetaan rek am na cofeel ci man bu ma saagaa rek am na lu ko naqari bari na ay nit nit yoo xam ne man mm. nanguuma kuy wax ne du xool commentaire mais gis nga muy kii fecc baaxul muy kii musique baaxul muy kii làmb baaxul mais du ma ci xool benn nit ba jàpp ni war naa mën a dem safara mhm. parce que yàlla résultat lay xool digganteem ak jaamam yàlla dafa ne yonent bi waareel rek kii dem aljana mu ngi ci sama loxo ak ci sama yërmande waaye li wér tóor teel cee jóge nekk ci siraatal musaxim day dalal xel xam nga liir buy doog a judd may leen ma ma tëdd moom du ay waxam mhm. uwee rek moo ko jig mhm. aca doxalal dëgg la ma ma bàyyi la ak sa invité ngeen déroulé euh, njabootu Cheikhul Khadim gi ñu ngi may message sànq ba léegi Oustaz Hamidoun bu Touba TV mi ngi lay kontaane mi ngi may xamal ni jàmbaar pire nga éviter waxtaan kat pire nga éviter waaye tamit xam naa bugaan mhm. nit la koo xamante ne ku mu la jàmbaar la rek jàmbaar la mhm. ndax nit ku méttee ngi noonu mhm. bu ko defee euh, Serigne Saliou tërandoo Cheikhul euh, Serigne Saliou ñu bàyyi la nga daal di nuyoo nag ñu daal di dugg ci Cheikhul Khadim ak koor Cheikhul Khadim ak alquran bu fi xaje rabbi aouzu bika min amasati shayatini wa aouzu bika rabbi an yahduruni wa bimni masxudin wa jahibni salaam xinil bala wa durra xaynin wa kalam muhammadun sayidul kawnayni wa saxalayni wal fariqayni min xurbin wa min ajam maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatima nabiina wa kaana allahu bi kulli shay'in aliman xoloomi wa xirfaani wa saayi sakkiyatun liman bika li xadat tawalif wa sarha xalaayi bi max willahi ani mahawtuhu wa safa xayaati man li xëyri kafa sarha barke Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu sant Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal mboolem jullit ñi ñu ngi am mbégte lool Oustaz Mohamed waaye di siyaar suñu amido moom nga tudd waaye di siyaar bu baax a baax père noo ngi lay nuyu lay nuyu mboolem ku nekk ci plateau bi ñëpp ñu bañ a lim di juum waaw jërëjëf waaw ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax di la ñaanal jàmm